ñun daal dañoo sonn dañoo mel ni daal ñun dañoo nekkatul ci suñu dëkk bi. lii depuis presque trois semaines léegi mu ngi wal rek te gisuñu kenn ku ñu ci jàppale. mënatuma fee jaay mënatuma fee lekk mënatuma fee def dara te magum jëmm laa fi ne nii danoo sonn dañoo taay démb ba tey demoon kaso ndax fan la nit jaar ba ñuy jënd. te moo ne sax initiative yi tax biir bi sotti ñàkkul benn yoon. da ngay woo ba pare mu ñëw wax mu dem bu parce que nee nañ si nekk moo bëri léegi man laaj ma léegi ni muy demee ñu ne ma lenn moo mun a nekk am na benn équipe bi ñu demaat woo boo xam ne ñoom ñooy ñëw gas beneen oto boo xam ne moom mooy ànd ak kii picc bi gas génnee suuf bu génnee suuf boobaa lépp dina mën a dem. woo nañ leen ba sonn nag ba léegi. mu nduroog nag géej bu ànd ak xet bu bon bu kenn mënatul a naataale ci kanamu askan wi fay yeewoo nga xamante ne seen kàttan néew na lool ci mbir bi lee ba tax na ñàkkuñu di tàllal loxo autorité yi lee nañ ñu dimbale ñëw jàppale ñu ci ngir yàlla ak yonente bi ñii ñu ngi feebar ñii ñu ngi sëqat am na ñoo xam ne ñu ngi sëqat nii ba léegi lii baaxul day joxe tuberculose ak fii xale yi fi nekk rek baaxul suñu li ñu ci dimbale rek ñu jël laata nag situation bii di soppi askan wi yeewoo fii ci Grand Yoff xamatuñu rek lan lañ war a def moo tax sax ñàkkuñu di teg seen yaakaar ci ndimbalu autorité yi ci nu mu gën a yi